waaw da leen a jàmm ci xibaaru tàggat yaram yi mais laata ñu koy commencé dañ leen di wax rek ngeen di wéy di abonné euh, c'est très important ngir ngeen mën ñoo soutenir ngir également ngeen di mën a jot information en temps réel donc ñu commencé ak xibaar yi ak kàddu yu am solo yi nga xamante ne Sera Dilar euh, yëkkati na ko gannaaw bi euh, demee final ak Sénégal Nigéria éliminé dóor leen ci final bi jël ko donc ñoom ñu nekk comme vice champion.

Euh, ak coéquipier mi dund ko ak Sénégal donc nee na euh, jox na ko ay souvenirs yu bëree bari bari yoo xamante ne dina ko garder pour toujours et que euh, soutien bi nga xamante ne supporters yu Sénégal yi donc jox nañ ko ko nee na loolu reconnaissant na ci loolu xam na ko et que moo ngoog loolu la yëkkati noonu moom nag ndaw la 27 ans la am vraiment am na avenir ci basket également ci basketu Sénégal ñu ngi koy xaaraat ci yeneen compétition incha allah macha allah euh, ñii di wa catalan yi moom ñoom moom instant bi ñoom ñoo gën a sari koy gis ñoom jamono yi nuñ def ba pour capoter transfert wu Dembélé moom ci la ñu nekk waaw Ousmane Dembélé moo ngoog démb ma nga woon fële ca Paris ngir signer contrat ak Paris Saint-Germain waaye Barça ñoom ñooy yéexal affaire bi yéex avant envoyé la tontu email yi nga xamante ne waa Paris envoyé nañ ko ko donc loolu lépp ngir bañ Ousmane Dembélé dem fële ca Paris donc tey nag ñu defaat leneen lu gën a pire mooy woo ko ci entraînement. alors que Dembélé moo woon fële ca Paris ngir signé fa ngir def visite médicale moo tax Dembélé mi ngi noonu tey ñëw na ci teew ci entraînement bi donc moo ko entraîné ak ñoom euh, daal di daal di matale contrat bi nga xamante ne moom moo leen warande ak ñoom en tout cas Barça daal instant bi nuñ téye